salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ngeen baal ma waaye vidéo bi may def mënul xaar Ousmane Sonko def na discours jana ba pare ah li mu wax lu tuuti la waaye la moo wax a garaaw xam nga lan la wax dafa ñëw mbubboo tay waa Ngor parce que la xew Ngor yoonu politique ni wu ci gendarme yi ñoo soxla woon benn poste ma pour def ko fa waa Ngor ni déedéet du fi amee parce que dañoo soxla espace bi loolu loon jotee yoonu politique ni wu ci ba muy woo waa Yoof ak waa leen bu neen seetaan ndaw ñi déedéet yow waxal ci politique la 16 mai nga wax ci Mame Mbaye Niang ni nga tuumaal ne dafa sàcc vingt-neuf milliards waxal ci politique ñu déglu la mais la xew ngor yoonu politique ne wucc duñ la fi nga waxee sama vidéo bii damaa bëgg ngeen xam ne mënul xaar parce que fi ma waxee rek lan koy tontoo la xew ngor yoonu politique dafa bëgg a diaboliser askan wi diaboliser waa Yoff waa Wakaam ak population bi dóor leen utiliser leen comme si que politique la yoonu politique ne wucc la xew ngor dama bëgg mu leer rek wasalaam